assalamualaikum sama gars yi ngi leen di nuyu di leen siyaar yéen ñëpp di wax ni li ni ñoo ngi nuyu wa Xeweul gi TV ok nek parcel ñoo ngi nuyu di rafetlu initiative bi ngeen def moy que ni di wër xol li nga xamni tay euh mom ngeen ni tourner au niveau de Thiès di wax ni tay ji fi da ngeen di ñëw si gox bo xamni ne ñu ngi tudd Buntu Dépôt gox bi tuddu Buntu Dépôt ay xalé ñoo fi nekk xale yi fi nek ay xalé yi volontaire la. ñëw ànd pour liggéey buntu dépôt liggéey bu ñuy liggéey buntu dépôt mooy que ni li xew ci jamono mooy mbas mi nga xam ni tey moom la ñuy wax coronavirus pour xeex ko nan lañ koy xeexee mooy que ni tey waa buntu dépôt jeunes yi nga xam ne ñoo fi dëkk ñëpp ñëpp a jóg volontaire pour ànd daan coronavirus. si lan mooy dugg sensibiliser nit ñi wax leen lan la coronavirus def lan lañ ko mën a xeexee lan lañ mun a raxasee suñuy loxo lan la ñuy def ko ut ay masque ut ay coton ut lépp loo xam ni tey dafa nekk. ci lo xamni tay du lor pour mëna daan coronavirus tay gënaaw lool initiative bo xamni tay dañ ko sey jël tamit moy lan moy ken kep ku nekk dom buntu depp da nga jël sa dom da nga jël sa loxo jël sa doole jël sa temps jël sa poche ñu and dajalo ñun ñoo ñepp ñun ñoo ñepp and dajalo ñun ñoo def li nga xamni tay tey xaaruñu ci kenn muy ñoo xamni ni dañoo volontaire def ko rek ta yalla tax ñan ñoo mom li ni tay mooy ñi nga xam ñoo dëkk ci koñ bi te nga xam ni tey seen loxo jotul seen gannaaw tey ñi nga gën a yellool tey moom moo xam ni tey moom lañu war a yëkkati li teg ko seen loxo ñu bañ a xaar état ci dara. mu commencé ko nag ñun suñu wewu tànk waaw moo tax tey ñu ànd ñun ñëpp benn initiative ànd daan coronavirus ànd xeex ko ba mët sëkk si loolu lañ taxawee moo tax ñun ñii ñëpp ñu àndee ko waaw muy jeunes yoo xam ni dañoo volontaire taxaw pour liggéey buntu dépôt. pour liggéeyal Thiès pour liggéeyal Sénégal pare pour dan coronavirus di ñaan bass bi mu génn ci aduna bi ci jamm ak salaam jaajëf stop coronavirus. man la Cheikh Tidiane sey dekk Buntu Dépôt ñoo ngi leen di ziar leen sante bu baax ci déplacement bi ngeen da fekk ñu fi ci suñu koñ ndax yéen wax dëgg yalla wona ngeen ne ci social ngeen di dox. parce que lii naka ngeen ko gis rek ngeen ñëw indi seeni i matériel lépp jël ko lii rafet na ñaanal na ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na télé bi dem ba doon télé bu ñëpp di suivre ci senegal ñun nag lii dañoo toog daanaka ci banc bee lañ toog rek waxtaan ci xalaat ne pourquoi pas ñun mënuñu jóg daf benn social suñu gox dajale xeebuñu dara ñaar fukk téeméer lu ñu am buñ ko dajalee ba mu mot yenn somm yi ñu xool luñ ci mun a am ci ay saaku ceeb jënd ci madaar jënd ci gel jënd ci ordre général xool ci koñ bi am na ñu ñu dëkkal ñoo xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw am na daaru arxuraan bu nekk fii ci ginnaaw xale yi ba léegi dañuy wër di yelwaan ñu ne ñun bu ñu dajalee ba am loolu bu ñu ko dugalee ci koñ bi xool daara yi yóbbu fa ñun suñu jaan wàcc na parce que lii képp ku ko def sa karce di nga noppal nguur ci li muy liggéey karce bu nekk ASC e bu nekk war ngaa mun a jóg xex corona ci sa gox dafé ko ni parce que nit ñi bo leen joxé ñu lek ñu naan ñu genn parce que nit ki tamit mëno ko téye kërëm ta amul lu mu lek nit bo dé ba koy toogloo këram day fekk nga jox ko lu mu lek ñun motax ñu xalaat li jënd li lepp xaalis a ko jënd bon am suñu benn boy bu nek France ñu koy wax ma samba sen ma sen ñepp nañ ne bitim rew instant yone xaaliss yombul mais boy bi fexé na ba dugg ci ay ruq génné xaaliss bu bëre yone ñuko ñu jënd si ay ceeb ak li waa koñ bi génnee bonne volonté yi ci koñ bi ku ci mel ne ay Bas Diop xam nga ay cawa grand yi ci koñ bi ay Sidiki ku nekk ay Mambala Sall ñu leen di sant di leen gërëm ndax man ku ma ci woo téléphone ne la ah grand ñun de lii lañ bëgg def ci koñ bi ñu ne ma non booy xalaat boobu rafet na ci suba sa dañ lay orange moo ne wala ñu yónni nit mu indil la ñu kontaan di leen ñaanal seen xëwal yokk te lii ñaanuñu yàlla mu yem tey bëgg nañ chaque jour ñu koy def di ñaan yàlla nag mbas mi dugg ci dëkk bi dimanche bi yàlla daf mu jóge senegal jóge ci àdduna bi yëpp moom la ñuy ñaan moo waral suñu logo bi stop corona à buntu dépôt stop ko ci Thiès mu stop Sénégal stop ci àdduna wërgël këpp ndax bu àdduna bu stopee ci àdduna bi rek ñëpp nañ dellu seen jàmm parce que ñun ñi ay jaaykat lañ mënatuñoo génn jaay te ñun ñëpp ay boroomi kër lañu kon ku ci ne war nga see dugal sa loxo ci xeex bi xeex ko mu jóge fi te ñu respecté li distance yi ñu koy jël fii gis nga mbooloo bi dañ leen a tas nanguñu ñu jegeyantoo ñu raxasukaay baa ngi nee ñu teg ku ñëw raxas raxasu ñu jox la gel wane bon exemple parce que nit booy jiitle sangu day fekk nga sangu ñu xeex ko quartier yëpp nañ ko commencé seen gox xeex lii ba laay wallaay taala yàlla dinañ jàppale parce que kilifa diine yi ñoo ngi ñaan kilifa aada yi ñëpp a ngi ñaan sëriñ si ñoo ngi wàccee ay kaamil kon ñu nit nañu dimbale suñu bopp nguur gi di wax nit ñi di def lu leen neex nguur gi li mu wax bu ci jaaree incha allahu rabbi feebar bi na fi jóge te loolu la ñuy ñaan yàlla di ñaanal jeune bunt dépôt yëpp ku ci def sa dërëm sa ñaat dërëm ñu dara ñoo ngi leen di ñaanal balaa déwén ci heure bi seen i xëwal yokk bañ yëg ko lii nag lu ndaw la xeeb nañ ko bu ñu sañoon teg fi conteneeru ceeb séddale ko ci biir koñ bi kër yëpp am ceeb ku ci ne am sa ñaari saaku ceeb toogaaleeg moom loolu lañ doon ñaan yàlla te yamul tey suba ginnaaw suba ba semaine bi yëpp ñoo ngi koy ñaan di ko def lii lancement la film bi incha allah nañ dina ñëw. ah mbokk yi kon asalaamaaleykum. jugal eh, fi sama bañ leen nuyoo ku nekk turam santam di leen jaajëfal ba pare di leen ñaanal jàmm yal yàlla dolli xéewal man maa ngi tudd Pape Modou quartier Buntu Dépôt di sant waa Buntu Dépôt si lii ñu def vraiment li nekk lu nga xamante ne lu ndaw la ndaxte depuis boobu dañoo toog lii matul juróomi fan bi ñu toogee ñu xalaat si muy xalaat bu nga xamante ne xalaat bu rafet la ñu toog Cheikh wax si ñu daal si xalaat ñun ñëpp sotti ko yàlla dimbale ñu si ba ñu réussir mu nekk ay xale yu nga xamante ne xale yu am jom lañ di fo xalé yo xamné dañuy fortatu deureum ak ñaar deureum ñom ñëpp ñu doole seen boole seen am-am ak seen doole boole si def ko li pour dimbale ñi nga xamantane jamono ji ay neew di doole lañu seen loxo jotu seen ginnaw muy aptu bu nga xamantane ne aptu bu rafet la aptu noble la tamit dama len ci ñaanal di remercier ñëpp ñi nga xamné taxi man nga jakarta man nga ñëpp def nañ seen alal kon li muy corona bi ñuy xex yalla nako fi yalla jëlé yàlla na ko yàlla jëlee si Sénégal lii ndax lii feebar bu doy waar la dañ ne la ki am alal sax muccul si feebar bi asantement ki nga xam ne amut kon yàlla nañ fi yàlla jëleel mbas bi mu deñ fii di ñaanal nag jeune koñ bi man laay gën a ñaanal lii jeune koñ bi ndax vraiment ay jàmbaar lañu te ñu baax lañu tamit lii kat yombul yomb na yombul waaye maa ngi leen di jaajëfal rek ne fi ngeen teg seen tànk foofu la bu leen ko teggi mukk te lii duñ ko bàyyi bu soobee yàlla te ñoo ngi ñaan yàlla jële fi lii kon maa ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal seen télé bi tamit yàlla na si yàlla def ay xéewal ndax vraiment ñu baax ngeen tamit kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf yàlla nañu yàlla musal ñun ñëpp jërëjëf ok merci beaucoup